ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi santaat suñu boroom ci wërsëgal gim ñu defal ñu dajewaat ci am néegam su séene jël benn bind bu aju ci diineem muy bind bu jëm ci wàllu fiq ñuy sukkandikoo téere bi nga xam ne ki ko bindoon mooy abu bakar aljazairi rahimahullah ñi ngi ko doon topp ba yegsi ci li nga xam ne mooy kitaabul bayoo mooy téere bi aju ci wàllu njënd ak njaay ñu ñëwoon ci li ñu war a jël tey mooy fi taamin bu dee ni ñu yor mool bu bees bi ñu ngi ci page trois cent neuf ñu ngi noonu fi taamin gannaaw bi ñu nekkee ci la nga xam ne mooy aju ci wàllu riba wa sarf kon mi ngi noonu ñu ngi tey jii mooy fukkeelu fan ak ñeent ci li nga xamee ne nii mooy weeru safar ci 1444 di tombe ak tey la ñaata neuf am dix tey onze tey onze onze ci la nga xam ne moom mooy weeru septembre le onze septembre kon naa loolu moom gaa yi gaa yi gaa yi duñ ko fàtte waaw yal nañu yàlla musal ci fitna waaw ala kulli xaal mi ngi noonu su dee mbokk yi gis nañu day wax ne fi taamin lu jëm ci wàllu assurance laa ba'sa an yukawwina ahlul balad min al ixwati al muslimin alsalihin dara nekkul ci mu amal ñii di waa dëkk ci doomu nday julit ñu baax ñi sunduuxan yusaahimuuna fiihi ñu créé kees goo xam ne dañ tey cotiser bi nisbati iraadaatihim shahriya te la nga xamee ne nii mooy aju ca lañu cay joxe ci weer wu nekk mi ngi noonu aw xasba ma yattafiquuna alayhi wala lu mel ne lañ ca dëppoo même bu dul par weer par semaine par trois mois min musahamati kulli fardin ci cotisation képp kenn ci ñoom bi nasibin muayyan ci cër boo xam ne dañ koy xam yakunuuna fihi sawa ñoom ñépp ñu yemoo ca la ñuy joxe ala an yakuna hadha sunduq ngiree mu nekk kees googe waqfan xaasan bil ixwati al mushtarikin mu nekk waqf waqfu mooy loo xam ne kenn moomu ko dañ koo taxawal ngir njëriñu jullit ñi waaye it di waqf bu ñu jagleel ñeel doomi ndey ya ko bokk fa man nazala bihi xaadisu dëhr koo xamee ne nii wàcc na ci moom lii di mbetteelu jamono ka xariiq ku mel ne ku lakkale aw diya imaal wala ku alalam réer aw isaabati isaabatin fi badnin wala leen lu ko dal ci yaramam utiya minhu maa yuxafifu bihi anhu musaabahu ñu daal di koy jox luy woyefal la nga xam ne nii moo ko dal gayra annahu yanbaghi mulaaxazatu ma yali lu dul dana yey ci ñu bàyyi xel lii di ñëw waaw mbokk ala kulli xaal li muy wax fii mooy aju ci wàllu assurance nga xam ne ñun liñ ciy dund tey sun maam yi xamuñu ko woon assurance dafa bokk ci forme aminu xaalis yi daanaka moo loterie yi soriwuñu ki ubbi assurance am woo nit ñi nit ñi ñëw di assuré tey doomu aadama yi bu doon cosaan ba mooy assuré oto yi dem nañ ba la ñuy tuddee assurance vie loo xam ne dañuy assuré seen dund ñoo xam ne dañuy assuré seen i kër ñoo xam ne dañuy assuré seen i société loolu mooy li am ci jamono amma bu dee forme classique bi nga xam ne ni moo am de par le monde doxalin boobee islam moom da ci dul d'accord ndax niñ ko waxee daanaka carte la rek waa ji assuré mën ngaa ñëw masalan ñii ñëw indi seen oto def assurance tout risque mën nga cee fay presque lu jege ay un million par mois mën ngaa dem lu jege dix ans quinze ans doo am benn problème loolee day neen mën nga koo def balaa ñoo am deux mois nga def loo xam ne oto bu yàqu na yaxeet ñëw far war laa jox oto bu bees lu mel noonu la ñuy wax ci ci def assurance vie ak assurance yëpp loolu moo tax borom xam-xam yi dañu naan li jëm ci wàllu assurance jullit waru caa dugg jullit du ca dugg lu dul ci loo xam ne nii dañ ko koo teg munta ñàkk masalan tey jii ku ne xam na ni sooy dawal sab oto ab alkaati du la jàpp mukk ne la assurance nga naan ko assurance daa xaram tu es obligé wut assurance loolee dañuy gis ne kon lor la waaye bu dul loolu jullit war naa moytu di dugg ci forme assurance yi am tey allahuma lu dul islaam lépp lu mu tere rek ut na yoon boo xam ne dana ko mën a compenser dana ko mën a wécc bokk na ci loolu forme bii nga xam ne borom téere bi joxe na ko mun a assurance day mbooloo jullit ñu nekk mënoon nañ ko am loolu yi ne doon ca dëkk ba la ca région ba la ca lu mu mën a doon ci réew mi waaye naka lay demee mooy dañuy ubbi kees goo xam ne dañ koy tudde keesu ndimbalante lépp lu ci waay dugal da caa jublu jaamu yàlla dimbali mbokk julitam amul leneen lum ci yaakaar dul loolu mooy képp ko lor dal sa kaw loolu def naa ko ngir dimbalee ko ko mi ngi noonu ñu tudda ko waqf su ko defee ñoom ña nga xam ne ñoo ko bokk waqf boobu dañu koy tënk ci ñoom ndax xam ngeen waqf dafa am ñaari façon waqf mooy waqf bu ñu boyal jàkk jaa ngi ni waqf la ñépp ko bokk ci tabaxoon ak këram kër goo xam ne këru doxandéem la ñépp ko bokk loolu nag bokkul ak mu ne lii dama ko tënk ci mbooloo sàngam su ko defee ñooñee nga xam ne ñoo bokk kees googee jàppalante ca yàlla tax ñuy xool lu ñuy cotiser ñu cotiser ko heure bu ñu demee tëral ay mbir ne masalan ku lakkale day kees gi dina ko jàppale nangam ku alalam yàqu kees gi jàppale ko nangam loolee kees gi di ko taxawee bu dee forme boobu loole moom islam bañu ko ndax waa ji lam ca def yëpp au départ da koo jàppe ne lii ak jaamu yàlla la ñaanul yàlla sax moom dem ba ci bénéfice woo ci dara loolu daanaka boo xoolee ci service yi moom la ñuy xaw a méngaleeg IPM nga xam ne day am ci service bi muy am lu ñuy dagg waa service bi kii moom service bi am lu mu cay dolli ngir ñuy jàppalante ci loolu su doonte ne ñoom amoon nañu yéene bu sell ne dañ koo def rek ngiree dimbalante ci suñu biir comme ni borom bi di waxe taawanu alal birri wa taqwa islam du bañ loolu looloo tax ngir uutale ko ak yeneen assurance yi mu indi ci ñetti mbir yoo xam ne nii mënu caa ñàkk ñetti mbir yu mënu caa ñàkk yow mu yor sa téere yi mu ne awalan an yanwiya al musaahimu bi musaahamatihi wajaha allahi taala li yusaaba ala zalik awalan mooy kiy dem di dugg ci assurance bi mel noonu bokkul ak ki nga xam ne nii ci assurance classique bi day paye mi te mooy ah naa def lii kat ngiree balaa yàgg lor bu ma dalee sax du problème ma am ci nangam waaye moom ba muy départ di def loolu la nga xam ne mooy jubluwaayam mooy yéene dimbali ay mbokk jullitam ñaareel bi an tattaxida mi ngi noonu ñaareel bi mooy an tuttaxada fihi almaqadir allati tumnahu lilmasabin lilmusabin fokk mu doon loo xam ne nii dañ koy limité kem ba nga xam ne moom la ñuy jox képp ko lor dal sa kaw kama xudidat ansibatu almusahimin comme nañu limité woon ah la nga xam ne nii mooy cëru ñay cotiser si bi xaysu yakunu qaiman ala almusawamati tamma kon fokk kees gi ñu ne ki ci bëgg a bokk day nangam ngay cotiser léegi nag ñu tëral ku nangam dal nangam ngay am ku nangam dal nangam lañ lay jox ñoom ñépp ñu bokk ci yem ci àq yi ñetteel bi la maania min tanmiyati amwaali sunduuq dara nekkul ci ñu ful la nga xam ne ni mooy alal dina ca kees ga bil mudaarabaat tijaariya ci def loo xam ne ni mudaaraba la mooy jox nit ki alal mu liggéey ñu séddee bénéfice ba ñu delloo ko ci kees gi wal muqaawalaat al imraaniya ak lépp loo xam ne ay entreprise la yuy jëm ci wàllu ay dëkkuwaay yu ñuy defar wal amaalu sanaiya al mubaaha ak yépp jëf yoo xam ne dafay aju ci wàllu technologie yi ñuy defar loolu lépp mën nañoo jël ci xaalisu kees gi def ca su ko defee su dee am na bénéfice bu ca juddoo bénéfice boobee ñu waajal ko delloo ko ci képp ko lor dal sa kaw ñu dimbalee la ci loolu kon mbokk ci tënk lii mooy assurance bi mu jàpp ne moom mooy assurance islamique boo xam ne jullit ñi mën nañ koo def ca man caa jëriñu man caa am ak la nga xam ne mooy jaamu yàlla gu leen yàlla di nangul ñu ngi noonu bala ñoo dal beneen buntu su doon am na ku am lu muy laaj ci assurance yi xayrun bu dul loolu ñu dellu ci beneen buntu bi insha allah naam bismillah waaw waaw ndax teg ay natt waaw natt natt bokkul ak lii natt moom mooy ndimbalante boo xam ne ku nekk la nga joxe loolu lañ lay delloo amma bu dee taamin bi nit ki mën na caa cotiser sax lu jóge un million ci lu ca lekk dërëm un million ba mu koy def da koo def ngir yàlla amma natt moom heure buñ ko tuddee mooy nit ki la nga natt loolu lañ lay delloo ñu ngi noonu loolu it lu baax la lu ay jullit war di def ngir dimbalante seen biir ndax am na ñu bëri ñoo xam ne mënuñu dajale alal pour ñu jël cent mille francs dajale ko téye ko mënuñu ko ku mel noonee boo ne ko weer wu dee indi dix mille ñu demee dem ba jëmmi jamono ñu teggil ko cinq cent mille wala un million loolee da ngay gis ne buntu dimbalu jaamu yàlla la ñu ngi noonu waaye ñu ngi doon bokkul ak assurance bi incha allah waaw waaleykum salaam waaw boo xoolee bind biñ mujj a jël dimanche passé ñu ngi ko doon jël ci exemple yi mu doon joxe ci banque islamique te moo di ne ne effectivement jurit ñi mënoon nañu créer banque islamique boo xam ne dañ cay ubbi buntu leble mais leble bi du am intérêt donc kees boobu ñu def bu doon keesu IPM la wala kees lu ñu ko mën a tuddee jurit ñi moom ko di ci xettaleente ñu gis koo xam ne daa am jafe-jafe ci wàllu bor ñu lebal ko wala ndaw loo xam ni kat mi ngi dooleem am pexeem waaye amul matériel ñu lebal ko mu jënd matériel ngir mën a liggéey yooyu yépp mbir la moo xam ne nii jaamu yàlla gu rëy la goo xam ne nii day dugg ci wàllu dimbalante bi ba tey wallahu subhanahu wa taala aalam naam wa ala kulli xaal mbokk bu ngeen xoolee seen téere bunt bi ci tegee mooy li ñu tuddee as sarf waaye dañoo gis ne sarf boobu mooy change jàngoon nañ daanaka l'essentiel bi ñuy ja jàng wàllu jëflante ci or ak xaalis boo ko xoolee lu néew a néew mooy seen différence loolu moo taxoon ngir bañee bëgg a gagner temps ñu jël almadatu sabia ñu jël bunt bi tege ci sarf bi mooy almadatu sabia juróom-ñaari lu bunt bi te mooy fi salam fi salam naam su dee gis nañ ko mu ne assalam taarifuhu lan mooy salam boo delloo ci sharia dañ koy tudde assalam di ko tudde assalaf mi ngi noonu mooy loo xam ne nii dañ koo jiital ci njëkk avant marchandisme di ñëw te mooy huwa ya bayu mawsuufin fi zimma te mooy jaay la nga xam ne dañ koo melal waaye njaay ma dafay nekk rek ci loo xam ne kóllëre la responsabilité la bu waaj a gàddu ñu jaayante ci loolu wa zalika bi an yashtariya al muslim silata matbuuta bil wasfi min taam mi ngi mel ne tey jii ab julit jëndoon lii di marchandise boo xam ne dañ ko nattale ba xam ko ci melokaan ba mu am ca wàllu ñam aw xaywaan wala mu doon ak jur aw gayrahuma ila ajrin muayyan wala leneen lu dul loolu ba ci digg boo xam ne dañ koo xam tudd ko fa yadfa as-saman mu daa di joxe njëgg wa yantazirul ajal di xaar dig boobee ñëw al muhaddad boo xam ne dañ koo limité li yatasallama sila ngiree mu mën a réceptionné daal di jot la nga xam ne mooy marchandise am fa ida xalla al ajal heure boo xamee ni dig ba jot na qaddama mu ngi noonu qaddima lahul baai aw qaddama lahul baai sila bu ko defee kaka jaayoon ñoo jox ko marchandise kon mbokk lii mooy li ñu tudde commandé ñëw nga ñëw da ngaa commandé bokk la ki ñëw di jënd ci li ñuy jàngoon ci dars yi passé yonent bi tere nit ki di jaay lu mu amul man joxoon ci misaal lu bari tey ci commerçant yi da ngay gis nit di ñëw di war a jënd marchandise yu bari yow genn wàll gi sax amoo nga daal di koy defal facture bi yépp mu jox la xaalis nga fas yéene dugg ca marché marché bi nag di wë di di wëri marchandise ma moom bi muy jëflanteeg yow jàpp na ne lii am nga ko forme boobu lislaam da koo tere amma li ñuy tudde assalam wala assalaf mooy waa ji xam na ne moom li muy jënd ci yow amoo ko wala boo ko amoo it mënoo koo jot léegi moo tax boroom xam-xam yi sax dañu naan waaw te dañ ko jàng ci kanam as-salaf il faut ay fan dox diggante fi ñu ko commandé ak fi ñuy jëflante yëree ñu uutale ko ak njënd ak njaay moomee di jaay loo amul mais bu dee ne dëppoo nañ ci ne man kat dama bëggoon bu nawet wàccee nga jox ma ñaari saako dugub ñaata ñu ne vingt mille mu yëkkati vingt mille jox ko kooku bu nawet jotee mu jox ko sàkku dugubam dama bëggoon léegi bu tabaskee nga jox ma xar moo xam ne nii dana am kuuy la mu am at lan lay doon tawaabiir lay doonam laadun lay doonam ngeen dëppoo ca loolu lépp dañu gis islam day nangu loolu loolu moo tax ba bu dee yow da ngaa yor sab téere mu ne xukmuhu xukmu salam aljawaaz bu dee at tey loolu ci lislaam day loolu lu dagan la id huwa albayu ndax loolu forme la ci njaay wal bayu jaiz te njaay moom lu dagan la li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daana wax ni man aslafa fi shay'in koo xam ne yaa ngi jiital njëg ci dara fal yuslif fi kaylin ma'lum na jiital njëg ga ci natt bu ñu xam wa waznin ma'lum ak peese bu ñu xam ila ajalin ma'lum ba ci dig bu ñu xam wa qawli ibnu abbas radiyallahu anhuma jël nañ ci ibnu abbas ba tey mu ne xadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam madina yonent bi day ba muy ñëw di dëkk ci madina wa hum yuslifuuna fi simaar ñoom day ña nga nekk daan jiital njëg te meññente ma sana wa sanatayni wa salaas daa nañ ko def ñaar at ñaari at ba ñetti at waaw kon mbokk bu ñuy wax nit ki ñëw di commander mbir moo xam ni ki nga koy commander wóor na la moom amu ko waaye xam nga waxtu wam koy am walla moo ko moom xam nga waxtu wa muy yegsi ngeen dëppoo ci loolu rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne nañu fexe ba bu dee lu ñuy peser nañu xam ñaata kilo lay doon bu dee la ñuy natt ñaata pot lay doon nañu xamit dig ba nga xam ne dëppoo nañ ca ñoom ñoom ñaar ni fokk dig boobee loolu dana am ibnu abbas mu ne yonent bi alayhi salaam daa ñëw madina fekk waa ansaar ñu fa dëkke woon jiitu sax lislaam da ngay suñu daan jógee Sham ñëw bàyyi fa seen xaalis ci lan mooy bu tàndarma ñoree ren nga jox ma fukki saaku tàndarma ñu dëppoo ci loolu am ñoo xam ne sax dañu fay bàyyi njëgu ñaari at am ñuy bàyyi njëgu ñetti at bu ko defee yow chaque année rek nga mu daal di lay jox la nga xam ne moom ngeen dëppoo loolee kon da ngay gis ne islam dana ko daganal nga ñëw ci commerçant bi ne man nangam laa bëggoon loolee kat ñu ne loolu jamono tel lay am ngeen dëppoo ci loolu mu doon ab diir su ko defee loolu la ñuy tuddee asalam wala asalaf nga jox ko xaalis bi heure bu dig ba ngeen waxante ñëwee mu daal di lay indil jox la la nga xam ne nii moom ngeen dëppoo woon su dee ne da nga tiim sab téere mooy li ci juróomi chart shurutuhu mu ne yushtarat li sixati salam ma yali balaa jiital njëg ci marchandise bu ñëwagul di dagan fokk li am ca an yakunu samanu naqdan min zahabin aw fidda fokk la ñuy jëndantee day doon monnaie na doon or wala xaalis aw ma naaba anhuma min umla wala la ko remplacé ci la nga xam ne mooy billet yi ak pièces yi ñuy jaayante mooy mën a ñuy jaayante léegi rek kay laa yubaa ribwiyin bi mislihi nasi'a tey jii ki nga xam ne dafa ñëw def salaf masalan ñëw nga ci borom tool bi ko dama bëggoon fukki saako dugub heure bu noor jotee ngeen dëppoo ci loolu xaalis rek nga ko mën a jënde waaye amoo droit ñëw indi say saako mboq pour ne ko nga jox ma dugub amoo droit indi saako ñebbe ci ne ko nga jox ma ceeb loole day dugg ci ay marchandise ndax comme ni ngeen xamee lii nga xam ne nii moom mooy prix marchandise bii nga ko jënde balaa booba mën naa fulu ak fulu ba mën naa daanu ak daanu moom lu ma dégg tey rek benn ñuy nettali benn waay bi wax ci rajo bi ni gis nañu yaay tu la ñebbe deux mille francs si ngeen te mën na am six mois ci gannaaw peut-être boo amoon cinq cent wala six cent am ko loolu moo tax ba salaf kenn du ko def lu dul xaalis kese kenn du ko def ci marchandise ñaareel bi an yakuna ajaluhu maaluman muhaddadan wala boog ñaareel ba an yan an yundabatal mubiic bi wasfin taamin yuxassihu yu shaxisuhu fokk la ñuy jaayante mooy ñu natt ko ci melokaan boo xam ne da koy jëmmal ñépp xam ne nii lay dem ceeb la ban ceeb la dugub ban dugub la ak jur la xar la bëy la nag la ila axir wa zalika bi zikri jinsihi wa nawihi wa qadrihi fokk ñu xam la ñuy jëflante ci ban catégorie la mi ngi noonu ndax ay ceeb la ay jur la ana ban façon la ana kem ga ñaata lay doon lii lépp il faut ñu xam ko xatta la yaqaa bayna al muslim wa axihi xilaafun yaqdi bihima ila al mushahanati wal adawa ngir ay jullit mu bañ a dugg seen biir loo xam ne ak juyoo lay doon bu leen di jural ak juuyoo akuk noonoo xëccoo akuk noonoo ca kon mi ngi noonu comme niñ koy gisalee li ci wàllu njaayin yi kon ñetteel ba mooy lan an yakuna ajaluhu maaluman muhaddada fokk dig ba ñu war a livrer marchandise mi day doon lu ñu xam doon lu ñu tënk wa baidan ka nisfu shahri fa aksar te it il faut mu sori il faut mu sori pour mu tudd salam lu mu néew néew dana mat quinze jours genn wàllu weer lu mu néew néew ngir mu mën a tudd salam ñaareel bi an yuqbada samanu fil majlis xatta la yusbiha min baabi bay dayn bi dayn al muharram fokk ba ngeen déppoo ci ne yow kat bu dee nawet bi wàcc na da nga may indil temps ci dugub ngeen déppoo ci loolu fa ngeen déppoo la nga la ñu war a fay xaalis bi mu téye xaalisam bala ñu koo def bor ci kaw bor da nga ma jox saako dugub mu ne la waaw kon man danaa la jox dix mille kon yoral nga ma dix mille ma yoral la saako dugub ku nekk di tapp sa moroom loolu du salam fokk mbir ma doon loo xam ne dañ koo joxe mi ngi noonu wal aslu fi hadihi shurut qawluhu sallallahu alayhi wa sallam cosaanu charte yi yépp day dellu ci waxe yonente boobu mu wax ne man aslafa fi shay'in koo xam ne yaa ngi jiital njëg ci dara fal yuslif fi kaydin maalum na jiital njëg ci natt bu ñu xam waznin maalum ak peese bu ñu xam waaye ila ajalin maalum ba ci dig boo xam ne dañ koo xam noonu it la amee ay atte yoo xamee ne nii mat ga muy tax mu mat mooy tax mbir ma wér su ca manqué mën koo yàq mooy indi ca ñetti atte mi ngi noonu ñetti ñetti atte charte dañ jàng ci kaw mooy loo xam ne bu manqué mbir mi day yàqu mi ngi mel ni rek charte ci julli bokk na ca laab kii julli ca laabul jullim day yàqu amma ahkaam yi mooy atte yi muy tëdd bi ci jëkk an yakuna al ajalu mimma tatagayyaru al aswaaqu fiihi wa zalika ka shahri wa nahwihi fokk ba la ñoo tudde na moom kat daa def ci moom salam day doon ci waxtu woo xam ne marché mën na caa wëlbatiku marché mën na caa wëlbatiku lum néew néew war na jege genn wàllu weer wala weer li anna salama fi l ajal qarib xukmuhu xukmul bay waaye bu dee ne salam te mooy commandé ci dig bu gàtt loolu moom njaayee yem masalan dama bëggoon portable tel tel tel tel mu ne la waa bu subaa may indi ko loolu duñ ko tudde salam loolu ak njaay la salam balaa am fokk mu doon ab diir bu yàgg nga xam ne waa ji kat lii moom amu ko waaye nag dana ko am ci bis sangam ci waxtu sangam ngeen jëflante ci loolu loolu mbokk mi ngi noonu gannaaw loolee itamit wal bayu yushtarat fihi ru'yatul mabi' mabi' wa fahsahu bu dee commandé ci waxtu bu jege islam danaan comme da ngeen di jaayante fokk koy jënd day xam la muy jaay gis ko settantal ko kon balaa tudd salam fokk ab ay fan dox diggante fi ñuy jële xaalis bi ak fa marchandise ma di mën a sottee ñaareelu ñaareelu atte bi an yakuna al ajalu zamanan yujadu fihi gaaliban al musallam fihi bu ko defee fokk dig bañ joxantee day fekk ne ci aada xam nañu ne dig boobee moom bu jotee lañ jëflante fokk dana am masalan ngeen jëflante ci mu jox la ñaari saaku dugub ñu ne nañ dem ba fin octobre fin octobre daal lañ koy joxe li ñu xam ci aada mooy buñ demee ba fin octobre moom tool buy ñor moom ñor nga gis ngeen mi ngi noonu su ko defee mu ne fala yusixu an yus an yuslama fi ratbin fi rabi aw aynabin fi chita masalan comme ñoom ay arab lañu tàndarma ak raisin lañu xam mu ne la nga xam ne tàndarma bu tooy kenn du ne nañ la ko jox ci rabi mooy li ñuy tudde printemps nga xam ne mi ngi noonu côté avril ak yooyu aw aynabin fi chita raisin it kenn du ne nañ la ko jox ci jamonoy sedd ñu ngi noonu diggante février mars ak yooyu lu tax mooy ñaar yooyu du am ci jamono yooyee ñu mel ne caamin yi xam nañ kañ la mango di am xam nañ kañ la xaal di am donc fokk ñu xam waxtu woowee ca la ñuy mën a tëral loolu li annahu mudaatun li shiqaqi baydi muslimin ndax ngeen jëflante ci ne waxtu sàngam da nga ma jox nàngam te waxtu woowu ku ne xam ne ne loolu du am fitna rek lay jur ak jooyoo ñetteel bi mooy in lam yuzkar fi l aqdi mahallu taslim sila bu dee ne ba ñuy tëralante waxuñu fan la ñuy livrer marchandise ma waxuñu fan la ñuy livrer marchandise ma su booba wajaba taslimuha fi mahalli l aqd kon dañu naan ña ngi ko war a livrer fa ñu toogoon di fa jëflante la nga xam ne mooy commande boobee wa in zukira zalik wa uyina lahu mahallun xaas fa huwa kama uyina fi laqad amma bu dee ne dañ koo tuddoon yéen a ngi nekk parcelle dama soxla fukki saako dugub waaye yaa ngi ma koy indil pikin ngeen dëppoo ci loolu su boobaa place bañ dëppoo place boobee lañ ko war a livré fa xaysu ittafaqa ala mahallin tasal tasallumu heure bu ñu dëppoo ci place bu ñu koy mën a jële livraison ba ñu ngi noonu wajaba tasallumu sila fihi day war lii di marchandise ma ñu joxe ko foofee idil muslimun ala shurutihim ndax kat li nga xamee ni mooy jullit yi la nga xamee ni nii mooy seeni charte yeneen bi alei salaam danaan jullit ñi dañ leen di delloo te la nga xamee ne nii moom mooy seeni seeni char mi ngi noonu parce que waxtu bi sori dégg nga nodd bi des na ñaata non non waaw ala kulli xaal mbokk jullit bu ñu xoolee bu ñu doon jël ci suñu téere bi nii di ko topp dafay joxe ay misaal ci ne nii la ñu war a bindee am njaay nii la ñu war a bindee am njaay waaye loolu dañoo jàpp ne maadaama ci bëri dars yu mel nii dafay xaw a diis ci ñu bëri njaay mu nekk ak façon donc misaal yi mu ci jox valable ci yëpp ñaareel ba it sunu juróom-ñetteelu bind bi bu ñu ko doon jël muy li ñuy tuddee chufa chufa mbir la boo xam ne nii dañoo gis ne lim ci bind bari na lool te it dafa bokkul ci ñun jëflante yi ñuy jëflante ci sunu sunu jamono yi tey looloo tax pour tënkal la ko rek chufa day am ci loo xamee ni nii duñ ko déplacé islam dafa tëral ni ay nit a ngi bokk benn kër ki nga xam ne dafa am genn wàll ci kër gi xëy suba woo keneen jaay ko wàllam wala ñaari ngi bokk tool kee xëy suba rek daal di woo kenn jaay ko wàllam ki nga xam ne moom la ko bokkal su ko neexee yëg ne prix bi ko waaju jaayee mu delloo ko njëg googu ca féetewoo ab toolam mu delloo ko njëg googu féetewoo ab toolam loolee day am ci kër di am ci ay tool amma bu dee loo xam ne nii day déplacé wu lu mel ne ay jur ak yu demee noonu shufa du am ci loolu doomu aadama bi am na droit àq ba mu am ci marchandise sel mu jaay ko daal di koy féetewoo loolee kon la islam tëraloon ci la nga xam ne mooy shufa waaye en général comme ni ñu la ko waxee loolu lu ci bëri wàllu atte la attekat mooy def loolu waaye suñ jamono tey ji nit ki du dem jënd këram ba pare ñoo ngi naan ko damay jëlaat kër gi par force amma bu doon atte islam mi ngi fi waa ji dañ naan ko waaye yow ndax bi ngay jaay sa genn wàllu kër gi tàggu nga ki nga ko bokkal ndax bi ngay jaay sa genn wàllu tool bi tàggu nga ki nga ko bokkal su dee ne tàgguwu ko keneen la woo jaay ko ko dañ naan ah waa ji ñu ko bokkal soo bëggee nga remboursé kii ca féetewoo sa tool yow kese wala féetewoo sa kër yow kese amma bu dee waa ji yëgoon na ko ne waa jaa ngi jaay ca loolee waxu ca dara ba mu yëg na waa ji jaay na ko kereen ba ñu séddalee tracé kër ga wala tracé tool ba yow mu yor sa téere yi dañ ci wàllu sam ne na ah bu ñu demee nag ba séddoo ba tracé waa ji nag amul droit de dellu siwaat ci loolee su ko defee kon loolu mooy ab tënk buñ fi yàlla dajale waate ñu jël la nga xamee ne ni moom dafa aju ci wàllu njaay ca intérêt suñ ñun ñëpp mooy li ñuy tuddee fil iqaala te mooy xàcc ba nga xamee ne nii islam may na ki jënd ba pare wëlbatikuwaat ñëw ca kam jënde woon donc dama bëgg nga delloo ma sama xaalis ah ma delloo la sa marchandise ka nga xamee ne nii moo jaayooñ am na droit ñëw ca kam jaayoon ne ko dama bëggoon nga dimbali ma jëlaat sa xaalis te delloo ma sama marchandise yooyee ay atte am na ci ci lislaam yoo xamee ne nii jàpp naa suñu jamonoy tey moom lu ci bari doomu aadama yi ñu ngi koy jëflante kon mi ngi noonu incha allah bu ñu bàyyee bilal nodd ba pare li ci des ñu xool question yu aju ci dars bi ak yeneen question yu ci bokkul it lañ ca xam bu soobee yàlla ñu tontu ca wallahu subhanahu wa taala aalam waaw la kulli xaal kii waaw kii laaj bi muy laaj day laaj ci wàllu ki nga xam ne moom day def ay natt natt yooyee muy natt naka lay génnee la nga xam ne mooy zakaatam bokk na ci la nga xamee ni nii day mooy la la gën a noppal mooy yaa ngi génne zakat nga xool natt bi ma am ñaata laa ca am nga boole ko da nga am génn ko zakat mu noppal la loolee moom da ngay gis ne mooy li gën a doon lu noppale amma bu dee ne li nga xamee ne nii moom mooy xaalis bi nga yor ca yow da ngaa teggoon ab natt natt boobee itamit yow bala nga koo génne zakat la nga xamee ne nii mooy bor ya nga war a fay yu mel noonu moom dañ naan dañ ko cay génne bokkul ci li ngay génne zakat loolu mooy li gën a simple su doon tere it waa ji daa natte natt boobee mu natte ko xam ne day tey masalan muharram bi war naa génne zakkaat léegi nag am naa natt bu ma dugal natt boobee teggeeguma ko bu ko neexee bàyyi ba teggi la nga xamee ne ni moom mooy natt bi heure bu teggee mu génneel ko la nga xam ne mooy zakkaat ya nga xam ne nekk na fa moomee la gën a mucc ayib ci moom la gën a mucc ayib ci moom ci waxi borom xam-xam yi mooy at mu ne da ko war a évaluer génneel ko zakkaatam at mu ne da ko war a évaluer génneel ko zakkaatam ndax moom mooy su coobaru jël xaalisam di ko dugal ci ay natt ngir def ko dencukaay kon at mu ne mu évaluer ne temps war naa ko génne heure bu jotee ab nattam mu génne ko su dee génnewu ko woon ci jamono ba nga xam ne moom lay génne zakkaatu alalam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam waaw nit ki su waaw waaw waaw ki nga xam ne dañ koo jox xaalisu salam mook xaalis yuñ ko lebal benn la heure boo xamee ni nii ki ka doon jëflante ak mbir mi doon na koo xam ne nii ku faatu la loolee da ngay gis ne ñay ay ay ndonoom ñoom ñooy yor responsabilité bi imma ñu delloo ko xaalisam imma bu doon te ne tool bi kat wóor na leen ne lii seen toolu baay la su leen neexee xaalis ba seen baay jëloon ñu denc ko ca bu tool ba ñoree ñu jox waa ji la nga xam ne nii moom mooy ak xam ca mbay ma waaye daal li wér mooy nit ki bu deeyee balaa ay ndonoom di lekk dërëm mboole mi borom dañ koy fay mboole mi borom dañ koy fay fayu boro salam nag ñaar rek la imma ñu jox ko marchandise wala ñu delloo ko xaalisam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam ala kulli xaal or ak xaalis kenn du ko weccee muy tolloo loolu moom ku ko defee kon borom or ba dana perte waaw li lislaam tëral kay mooy islaam dagan na ñu weccoo or ak xaalis jamono ji ñuy toll boo xoolee or bi ak xaalis bi seen différence ni mu jéggee dafay dafa ëpp sax daanaka or baa ngi toll ci cinq cent francs la xaalis baa ngi toll ci cinq cent francs or bi am na yu dem ba ay vingt mille francs kon dagan na nga indi tey ji masalan cent grammes or waa ji moom jox la cinq cent grammes ci xaalis wala sax un kilogramme ci xaalis la ca lislaam di tëral rek mooy na doon am indi la ca lislaam di bañ jox ma cent grammes or bu suba ma indil la un kilo xaalis wala jox ma un kilo xaalis bu ngoonee ma indil la cent grammes or fokk day nekk ñaar yépp day teew am indi bu dee loolu am na rek différence bay nekk ca mbir ya loolee islam waxu ci dara li l'islam di bañ ñu ëppale ko mooy xaalis ak xaalis te bu ñu waxee xaalis nag mooy xaalis piir bi ñuy takk ci loxo wala or ak or comme lu bari suñ jigéen ñi niñ koy defee indi sa chaîne or boo xam ne nii nekk na cent cinquante grammes ñu jox la beneen chaîne bu gën a bees téedéet da nga koy jaay chaîne or bi doo ko jënd bi mais or ak or kenn du ko weccee lu dul ne dafa doon yemoo wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw bismillah naam waaleykum salaam li may laaj mooy maanaam bu fekkee da nga am sa mbokk sa mbokk bu nekk ci àll bi mu dem ci comme que jamono yi léeg-léeg nga koy koo xam ne da ngeen ba am problème bu daal léegi nag ñu ñu sax maanaam mu mu waxal pour nga jox ko vingt mille francs mille francs ñu jox ko nga jox ko vingt mille francs bi ñu jëlee ñore ñu jox la ñaari ñoom ñu ndax loolu dana waaw mooy mooy maanaam nga nga kii sax la quarante mille francs quarante mille francs nga jox ko quarante mille francs bu bu ñore ñu jox ñaari ñoom ñu waaw loolu lañ doon jàngale loolu lañ doon jàngale tey loolu la ñuy tuddee assalaam moom la ñuy tuddee assalaf mooy baykat bi xam nga ne bu bu na nawet bi wàccee dana am dugub wala mboq wala gerte ngeen dëppoo ci ñaata la lay jox xaalis ba nga jël ko jox ko ko moom léegi mu yoral la gerte wala dugub loolee da ngay gis ne ndimbal la ci baykat bi te itamit waa ji nga xam ne moo commandé loolu mën na cee gañe mën na cee gañe lu tax mooy lu ci bëri loolee mën nga cee am bénéfice par rapport ak bàyyi boo woowee mu doog koo jënd bu dee de daal dëppoon nañ ci islam du wax ci loolu dara wallahu subhanahu wa taala aalam allahuma lu dul nekk islam moom toujours dafay jiital règle sharia la darara wala dirara mooy bul loru bul nangoo lor bul jàpp mukk ne baykat bi amul lu mu lekk wóor na la ne gerte gi masalan ñu ngi koy nar a jëndee kilo deux cent cent kilos yi nekk vingt mille mais xam nga ne dafa tu dafa jaaxle rek nga ne ko ah dix mille laa lay jox ko jox ma saaku gerte su boobaa il faut mu nangu ko mais da koy nangu ngir lan ngir dafa dafa dafa loru dafa jaaxle bu dee forme boobee islam du ko nangu waaye daal bu dee forme boo xam ne forme njaayante la loolee lislaam dana ko nangu wallahu subhanahu wa taala aalam naam kon yaakaar naa mbokk mënees na ah ah ah voilà ko li bu dee ndax ndax loolu wóora ci la ndax joxe xaalis bu nawet bi joxe ngay ba xam ne cee dee waaw loolu moom kooku ba kooku moom règle règle la boo xam ne islam moom xamewul noonu islam moom danaan jëflante bi dagan na léegi nag yow mi am chance malchance jëflante ci caamir mu def la la ko defit loolee lu tax moom règle bi moom jóge fi règle bi daal mooy am na fi te it nañu xam ne bokk na ci musiba bu ci musiba yi mooy wor mbokk julit suñu borom mu ne yaa ayuha allazina amanu li ma taquluuna ma la tafalu lu tax ngeen di def lu ngeen dul lu ngeen lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def kabura maqtan inda allah màgg na lool mer bi woo ci yàlla julit ngay wax loo dul def te loolee mbokk da ngay gis ne effectivement ni mu ko waxee bari na lool ci doomu aadama yi ñoo xam ne dañuy jëflanteeg yow boo ñëwee ñu layal la lay yoo xam ne maara dee caay waaye nag kii mën nga koo nax mais mënoo nax yàlla loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla laabal suñu société may ñu tawféex wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain